a ngi jooy jug leen daalal ko taxul ñu teew fii lu dul bëgg yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, di sant yàlla bu baax message bi ñu bëggoon jàllale ci bés bi jàll na orientation yi nga xam ne am na ci bés bi jàll na euh, professeur Hamidou Daat sa teewaay rafetlu nañ ko lool professeur Hamidou Daat moom mi nga xam ne daanaka ñiy def doctorat ci dëkku Afrique yi ci mathématique yëpp moo koy signé mu nga nële ci biir mbooloo mi toog di kilifa gu mag ñu ngi koy nuyu bu baax a baax xam naa ñi doon lim tur yi dañu fàttee lim turam mais ñu ngi koy dalal bu baax euh, ñeneen ñi ñëpp nim lim nañ leen keneen ku ñu limul rek nga xam ne ni bis bi demee la mais yëg nañ sa taxawaay yal na leen yàlla fay. Euh, yont yàlla muhammad li ko yàlla jagleel dafa bari waaye benn jagle laa bëgg junj ku nekk ci yéen xool lan la ci mën a participer mooy moom dong mooy ki nga xam ne moom la yàlla yónni ci mbooleem mbindeef yi ñu ngi yenn ay immeuble lu bàkkaar ku nekk jàq kenn xamatul foo jëm mu yëkkati kàddu ga ne ko yàlla li ma lay laaj tey mooy ummati ummati ummati yàlla sama xeet wi sama xeet wi sama xeet wi kooku mooy yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax maam sidi haj malik nee na laa tahrimanna ilahi yowma ruyatahu yàlla bu ñu xañ mukk keroog bés penc ñu ñàkk a gis yonent bi parce que ku ko gisul perte fa laa yaxiibanna man yarjuuka yallaahu yàlla ku la yaakaar doo tas yaakaaram alshafaatul kubra ki ci ëpp cër nag ëllëg yowmal qiyaamati mooy ki ëpp yërmande ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi ñeneen dinañ ràmm ci ndigalu yonent bi ak ndigalu suñu borom mooy ñi yenn woon message su yonent bi di tasaare yërmande nañu nekk ay jullit yu am yërmande jàppale yonent bi ci xeetam fexe kar leen ba du ñu dem safara yal nañu ko yàlla yombal li ma bëggoon wax yépp xaju fi maa ngi jéggalu yontu yàlla muhammad di jéggalu sunu borom parce que wax jotaay yu mel ni yonent bi rek lañu ñu war a wax defe naa ku ñu fi tuddul sax da ngay bég waaw waaye nag li nu waroon wax ci moom tuuti bëri na waaye lii lañu am ci waxtu sama doomu bàjjan soxna Aji Siise mooy doomu bàjjan Néné Dramé sama rakk papa sama mag a ngi nii papa Abdoulaye Dramé ak sama mag bi nga xam ne moom ma jàngal alxuraan sëñ Moodu soxna Aji joxe ne léegi eh, yóbbanteem nee na déwén incha allahu moom Sorano fay na ko ba pare waaw nee na déwén moom lu aju ci Sorano lépp fay na ko ba pare yàlla na ko yàlla fay kon ñun ñëpp ñu joxante loxo jàppante liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg sunu borom ñaan yàlla mu nangul ñu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen jox euh, rendez-vous incha allah nag ci koor gi ñu dëgmal fas yéene ngeen jàpp émission yi bu baax. parce que dañu fas yéene tàmbaliwaat dundu saxaaba yi koor gi yëpp ñi àndoon ak yontu yàlla muhammad nan la ñu mel loolu lañ fas yéene nekk programme koor gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu lislaamaa ngi jooy jug daalal ko